wa tuxliqu biha anna abwaaba alcharri wa taasiri wa takunu lana biha waliyan wa nasiran fi jamici umuurina wa shu'uunina wa axwaalina fi dunya wal axira anta waliyuna wa mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir amma baad ayuha alixwatu almuminuun ayatuha alaxawaatu almuslimaatu almuminaat saaxib alfadila alxalifa alamjad maali cheikh Mohamed Almadani Taal ibni amina alcheikh mohamadul muntaqa ibnu ahmad ibnu muntaqa ibnu cheikh alxaaji omarul fóotiyu taal radiallahu anhu assalaamu aleykum wa ala kaafati ashyaakhina wa axussu minhum bi dikr alsharif al amjad sayidi altayib ibnu sayidi mohamad alhabib ibnu sayidi mahmoud ibnu sayidi mohamad albachir ibnu sayidi mouhamadin al habib ibnu cheikhina tijani al qutbi al maktum radiallahu anhu wa huwa xaadirun maana fi hada al yowm al agar al mubarak kama usalli kama usallimu ala kaafati zurriyati cheikh al xaaji omar al fouti jaddina al mubarak radiallahu anhum ajmain wa ala abnaihi wa banatihi wa ahfadihi wa xafidatihi wa usallimu ala kaafati zurriyati al awliya wa ibadillahi alsalihin alxaadirina fi hada almajlis almuwaqar wa minhum sayidi wa axi alcheikh isxaaq ibnu cheikh mohamad albachir ibnu cheikh ahmad bamba radiallahu anhu alladi ata wa sharafana bi xudurihi niyabatan an alxalifati alamjad alsayidi mohamad al muntaqa Mbàkke xafidu cheikh alxaaj xafidu cheikh ahmad bamba alladi wa xalifatuhu wa waarisu sirrihi amadallahu fi umrihi wa mataahu bilsixati walafiyati waltawfiq wa iyakum wa jamici man xadara min almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat xaasatan asxaaba alsaada alsufara alxaadirin alladina ataw wa sharafuuna bi xudurihim fi hada alyowm almubarak wa maana axuna kama dukira anifan muhammad barutsi alladi huwa ibnun li hadihi al usrati al umariya li anna cheikh alxaaji abdul aziz ibnun fi hadihi al usrati wa ixwanuhu al bararatu al kiram sayidi ahmad sayidi abou bakr sayidi mohamadul habib wa samiyi alxaaji mohamadul mansour si malik walidul xalifati الشيخ أبي بكر الذي أرسلنا لكي ننوب عنه في هذا المجلس الأغر أيضا كلهم أبناء وأحفاد للشيخ الحاج عمر الفوتي wa talaamidun lahu kama huwa sha'nu kasiirina jiddan min al min al malaayin al muslimin alladina wa in lam yuxdu bi muaayashati cheikh alxaaji omar tiinan faqad aayashuhu diinan wa xaqiqatan wa shariatan wa sunnatan wa mahabatan lima ahal lima wahabahu allahu iyahu min alqutbaniyati aluzma walwilayati wa min alsalaaxi walilmi walwaraci walzuhdi waltaqwa walqiyam walmusul allati la tajtamicu illa fi man huwa min rijalillahi alazama ñu ngi nuyu tam bu baax son excellence monsieur le ministre hmm? son excellence monsieur le ministre Aly mi nga xam ni suñu mbokk la ca Jolof ñu bokk ca Nguy Ndiaye Fama mi nga xam ni moom meññ sa feetu ñag mu meññuñu ñi ñu waroon tudd seen tur yëpp tudd nañu seen tur ci délégation bu tedd bi nga xam ni ki leen ki leen fi yebal yebal ñu ñun ñëpp te man ma nekk seen jaam te gënuma leen mën a wax maa ci gën a néewi xam-xam gën ci tëlee wax xanaa dañ ma tere la rek euh, mbokk gi ma bokk ak ñoom mu di seen maam Cheikh Al Hadji mi nga xam ni ki ko fi wutu tey di xalif général de Tidiane mooy Cheikh Serigne Babacar Sy Mansour sama doomu turandoo yal yàlla guddal fanam may ko wér ak yow xalifa bi Cheikh Thierno Madani ak say mag ak say rakk ak say wajur yi fi nekk rawatina Thierno Mahi Tall boo na ma ni mi ngi fii waaw Mahi Muntaka Ahmed Cheikh Omar waaw mi ngi fii ci suñu biir nga xam ni suñu doomu bàjjen soxna Xadijatu soxna Madina taal di doomu maam alxaaji maam maam Seydu Nooru taal ak soxna Xadijatu si caatu maam Roqay Njaay Ali Boy ak Cheikh Al Hadji Malick soxna Xadijatu moomu la yàlla sarax Madina Taal ci digganteem ak suñu maam ju baax ja suñu baay bu baax ba suñu sëriñ bu baax ba maam Seydou nooru Taal mi nga xam ni waxoon naa ko keroog ca symposium bi moom moo jox weddu sëriñ Babacar Mansour gannaaw ba ko ko Alaaji Mansour sama trondoo dénkee moo jox weddu soxna Fatima Fatimatu si Mansour mi xalif général de Tidiane sëriñ Mansour si borom daara ji doon denc muy magu Serigne Babacar Mansour moom itam maam Seydou Nourou Tall moo ko jox wérd yaay ji ma jur man maam Seydou Nourou Tall moo ko jox wérd ci ndigalu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ak baayam Moubarak Gaye kon yéen suñuy sëriñ ngeen ñu ci ñun moo tax Serigne Babacar yebal ñu ak sama kilifa yu tedd yi ñu tudd ñuy délégation bi ci góor ak jigéen pour ñu indil la yeesalal la jaayante maam El Hadji Malick ak maam Cheikh Omar mu bàyyaa ba maam El Hadj malik amoon ak maam Cheikh Omar am zahri xayb ñu ngi continuer mi ngi continuer moom sëriñ Babacar Mansour ànd ak sëriñ Pape Malick si porte parole bu Cheikh Al malik njaboot njabootu Cheikh malik Hadj sëriñ Maodo malik si sama sëriñ sama mag ñu bokk ndey ak baay ak sëriñ abu Bakar Abdoul Aziz sama sëriñ sama mag itam ñoom ñëpp ñuy sama sëriñ sama mag ñu ngi ànd ak njaboot gi fi ñëw ki njiitu sëriñ Mansour si Jamil ak rakkam yi ñu fi tudd ak baayam yu ndaw yu ñu fi tudd. di yeesal ak yow jaayante googu ak kóllëre googu ak cofeel googu ak mbëggeel googu ak sàmmoonte googu ak yéenante jàmm googu yal na ànd ba firdawsil aala ndax loolu suñu feeg ñu koy def rek baam alaaji Malick di bëgg Sidi Ahmed si di bëgg Serigne Babacar si di bëgg alaaji Mansour di bëgg alaaji Abdou Aziz di bëgg alaaji Habib di bëgg ak maam ya ñu àndaloon maam Seydou Nourou mi nga xam ni moo fi mu joon maam El Hadj Malick maam El Hadj dénk ko njaboot ga moom tam mu ciy bég guddeeg bëccëg suba ak ngoon Baye Thierno Mountaga mi nga xam ni mooy suñu wajur bu baax wa nekkoon xayru xadimin li jaddihi te yow nga wuutu ko ci tey maam El Hadj Omar moom tam mi ngi ciy bég kon yal nañu yàlla sàmmal kóllëre gi yàlla ba mu yàqu mukk sëriñ euh, lu mel euh, docteur Ahmed Tawfiq le ministre des affaires islamiques waxtaan naa ak ñun ci wàllu tasawuf ak niñ ko war a sàmmee soufisme niñ ko war a sàmmee lu ci bokkul woon ñu jële ko ci te mu nekk un soufisme positif patriotique un suffisme positif patriotique un soufisme de sécurité d'amour de paix de cordialité de convivialité ci suñu diggante ñun taalibe yi ak fu ñu mën a bokk nag ñuy tiijaan ñuy murit ñuy mbokk murit comme ni ko cheikh mu comme ni ko cheikh Ishaqa waxe ñuy njabootu maam limaamu di njabootu maam maam uh, uh, Cheikh Saadu Abi maam Bou Kounta Haaj Mouhamad Saïd muy keneen ku mën a doon ak mooy wala njabootu cene ba ñun ñëpp dañu war a ànd ànd ak yow ànd ak suñu xalifa yi dégg nga pour sàmm lépp loo xam ni moom lañu am ci tariqa yi ñu bokk mu nekk tariqa yoo xam ni day jouer rôle boo xam ni ci suñu citoyenneté dana ràññi ko lool ci wàllu sécurité parce que lislaam dem na ba ni euh, salaatul xaw fu sax am na julli goo xam ni dañ koy julli ci jamonoy guerre ak yeneen yal yàlla musal ñu ci guerre moo lay won ni sécurité warul tàqalikoo ak jullit warul tàqalikoo ak bépp citoyen kon daayira yi bokk ci biir euh, tariqa yi fi nekk yëpp ci Sénégal war nañu bàyyi xel réewum Sénégal sopp Sénégal wëllërenteeg Sénégal xubbul watani min al iman fonk sa réew dafa bokk ci liimaan ak confession bu mu mën a doon ak fois bu mu mën a doon ci quartier yeeg yëpp war nañuy bàyyi xel liy dox ci quartier yi ak li fi xew war nañu bàyyi xel cofeel gi ñu war a am suñu diggante di seetal xol yi ak xel yi ak dëkk bi temps yële rek ñu ngi dégg campagne bu mag boo xam ne njiitu réew mi jël na ko euh, pour wax nit ñi Sénégalais yi nañu fonkaat lu jëm ci cet te yàlla moo ñu dëkk jëkk digal ñu fonk cet inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin kon daayira yeeg lépp war nañu fexe ba fonk jumaa yi ñuy jullee ak imaam ya lu jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu problème d'urbanisme yi ñu am ci biir Sénégal ci wàllu discipline ak organisation ak métode en tant que citoyen sénégalais loolu dañ ko war di waxtaane même ci wàllu daje daayira yi guddi ajjuma yeeg lu dul ko guddi ajjuma yi dañ ko raw di waxtaane ci jumaa yeeg xutba jumaa yi ak bayaan yi ah, ñu ngi jégalu xalifa bi doon hmm? waaw waaw ñu ni ñu ni sang bu tedd bi kenn kenn Mouhamadul Bachir Mountaga Daha mooy ñëw xalifa maam alxaaj Omar Foutiyou yal na ko yàlla may fan wu gudd ak wér ذنبي صريحا لنبلهم خصصت بمدحي جامعا كل شملهم عسى فزعتي يوم القيامة تفرخ بقرآنه قد قاد قد قود جلمدي به الخلق والزم سيرة الحب أحمدي ولا تر في شيء ولا تني تحمدي كواكب آيات النبي محمد هدت كل من يهدى بحق بلا شك ولله خير العالمين محمد شفيع الورى المنجي لذلك يحمد إذا اشتدت الأهوال لا فرد يسمد يا أم الورى خير الورى ذاك أحمد فيوسعهم برا ويحسبهم ñu ngi jéggalu bu baax ndax suñu kilifa ñun ñëpp suñu sëriñ moo doon yegsi suñu yaakaar di suñu wayjur cheikh Mouhamadul Bachiru Muntaga Daha cheikh Omar Tall al Fouti radiyallahu anhu di xalifa suñu maam Cheikh Al Hadj di suñu sëriñ ñu ngi koy tatagal di ko sargal di ko ziyaara mi nga ànd ak doomam turandoo suñu maam eh, Cheikh Omar Al ak Mouhamadou Nour eh, di ko ziyaara ziyaarata istimdaadin wa tabarrukin wa taalluqin bi adyaalikumul karimati di ñaan yàlla guddal saw fan sa mbokk bisa sa taalube sëriñ Babacar Mansour moo ñu yabaloon ndax cër bu rëy bi nga xam ni jox ngeen ko ko sa doom ju baax ju tedd jii ñu nag moom ñëpp ñuy sa njaboot di sa taalibe ak ahbaabu Cheikh Omar jox nañ ko ko ci bés bu tedd bii ne ko dañ ko dañ ko terale doomu Cheikh Omar jarbaatu Cheikh Omar taalibe Cheikh Omar maccudo Cheikh Omar Cheikh Al Hadji Malick Sy ibnu Ousmane moo tax ñu doon taxaw doon fi jotal ay kàddu sëriñ baaba kër si Sy Mansour faf ñu dégg ne yaa ngi ñëw ñu ne nañu bàyyi ba nga ñëw nga barkeelal ñu jotaay bi ñu eggale ci ay kulaymaat yu ndaw rek mu jeex ñu toll woon ci nuyu alxaaji Aliou Nguy Ndiaye ak délégation bu tedd bi mu àndal alxaaji Aliou Nguy njaay ministre de l'intérieur ak délégation bu tedd bi mu àndal ci góor ak jigéen jóge ci son excellence monsieur le président de la république du Sénégal alxaaji Macky Sall ñu koy nuyu di ko ñaan ci turu ci turu Serigne Babacar Sy Mansour mu ja mi nga xam ni jaarale na nuyoom ci yow Baye Mouhamadul Bachir ak ci sa doom ju tedd ji Thierno Mouhamadul Madani Tall ak njabootu Cheikh Omar yëpp ak ahbaabu Cheikh Omar nuyoo Cheikhu sëñ Babacar si ak yeesalam kóllëre gi cofeel gi ñu ko jaarale ci yow ba mu yegg ci alxaaji Ali Njaay mu eggale ko ci suñu njiit ñun ñëpp suñu kilifa ñun ñëpp ci Sénégal bi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall yal na yàlla guddal fanam may ko wér moo gouvernement am moo peuple Sénégal bi nga xam ni yàlla dénk na ko ko yàlla may ko ci ndam te di nuyu donte dem nañu ñi nga xam ni ñoom ñoo fi wutu woon euh, jalaalatul malik amirul muminin Mouhamad Assadis maa ngi nuyu itam na Mouhamadul Habib Nuuru Cheikh Omar léegi dama toog muy wax ak man ma xam ni Nigéria la jóge te suñu sëtu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu anhu di sama sëriñ di sëriñu ki ma fi yónni muy sëñ Babacar Mansour comme ni ngeen doone sëriñam doone ko sëriñu njabootu Cheikh Al malik sëñ baabakat nag di ñaanal njabootu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall dale ko ci yow ak képp ku maam Cheikh Omar Foutiyou jaar ci Thierno Madani Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Omar ak ahbab ak njaboot bi yëpp ba ci imaam Seydou Nour mi nga xam ni moo fi nekk ak mag ñi fi nekk ak góor ñeeg jigéen ñeeg ndaw ñi mani ni sëriñ Bay Mansour nee na mi ngi feddali pas-pasam ak taalubeem ak jaayanteem ak njabootu maam Cheikh Ahmad Foutiou Tall moom ak ku alxaaji Malick si am radiallahu anhu foofu lañu ñu toll woon loolu nag nahnu ala darbi saairuna maakum duñ leen bàyyi te ñu mukk ngeen bàyyi ñu ba àjjana ca kanamu yonent bi saai sallam ak Cheikh na Tidiane ak Mouhamadul Ghali Cheikh Alpha Mayoro Cheikh El Hadji ak seen njaboot ak seen doom ak maam Seydou nooru Tall mi tëdd fii ak Baye Thierno Mountaga Baha mu tëdd fële ca Louga ak Baye Thierno Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar loolu lañ doon wax euh, euh, Your Highness sat down I was beside you right now then I knew that you are the great grandson of Cheikh Omar Foutiyou Tall as emissary of Serigne Babakar Si Mansour, the General Khalif of Tijaniya here in Senegal, who is the great grandson of Sheikh Al Haji Malik Si, who received with honor the honorific, title of this ziyar, the ziyar of this year. We are welcoming you among your disciples because we are your disciples and the disciples of your great grandfather Sheikh Al-Hajj Omar Foutiou Tal. We continue to express with highly love, care, and, uh, and, and wishes for all of you long life, health, and prosperity. And we welcome you to this country which is yours, the Senegal, because Senegal is a country that have a lot of relationship with Nigeria. a relationship of love, care, and brotherhood. So we wish you a nice stay among us, and we wish you a pleasant journey, and then we wish you back to Nigeria a nice trip, inshallah. May Allah bless you and bless all of us, and bless, bless this assembly, inshallah. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jërëjëf sëriñ Mansour Sy Ibn Abdoul Aziz Sy Dabakh euh, je signale monsieur le ministre que la présence effective de Chérif Mohamed El Kébir Tijani de Fès et de Chérif Taïb Atijani ici de Dakar ainsi que de plusieurs ambassadeurs ici présents comme l'ambassadeur de Palestine docteur Sawad Ibrahim le consul Mohamed Imam le consul Alban Mohamed, consul de l'ambassade d'Algérie, le docteur Mohamed Imam de l'appel islamique Libya, Excellence l'ambassadeur Seydou Nourouba, le haut-commissaire gambien Ibrahim Ousmane Dour, M. Alassane Ba, représentant de l'ambassadeur de France, M. Philippe Lalion, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Fahad Al-Dossari, les deux grands sérignes, grand sérigne Abdoulaye Martar Diop président, vice-président de l'Assemblée nationale, et le grand Serigne Pape Ibrahima Diagne. Et euh, là, je m'arrête un court instant pour signaler les relations qu'il y avait entre la communauté lébou et Thierno Seydou Nourou Tall. Thierno Madani nous a tout à l'heure dit les excellentes relations qu'il y avait entre Adja Mariam Diop, la mère de Serigne Bassirou Diagne Marie, donc Mariam Diop, entre elle et Thierno Seydou Nourou Donc votre présence ici effectivement votre hospitalité envers Thierno Seydou Nourou Tall yéen a ko dalal fii ci Ndakaaru yéen a ko euh, wax bismillah fii ci Ndakaaru donc nee na cérémonie bi seen cérémonie la moo tax mu ngi leen di wax bismillah ci li ngeen moom ci li ngeen moom su waaye ñu fi ñëwee yéen yéen a fi dalal gan yi incha allah kon boog mu ngi rafetlu bu baax seen teewaay fii di ñaan relation yooyu diggante Lebu yi ak euh, famille Tall mu yàgg lool te sax nous avons aussi la présence des délégations des familles omariennes de la Guinée, de la Gambie, du Mali, du Nigeria, de la Mauritanie, notamment Tcherno Mahital du Mali, Imam Babli de la Gambie, Tcherno Amoud Hadi de, de, de, du Nyoro, de Nyoro, Nyoro Sahel, et de l'émir Sardaune du Nigeria, et de Tcherno Baydital de Dingirai. Nous avons aussi la présence du représentant du professeur Ibader Cham, empêché, et qui souhaite plein succès à la cérémonie. Serigne Bekay Kunte, représentant de la famille Kunte de Nyassan, à la tête aussi d'une forte délégation. voilà ceerno en jettima ha ɗo joni ministre de l' intérieur tottosen konngol le ministre de à présent nous vous passons la parole pour votre allocution ahousubillahi min alcheytan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina wa alihi wa sahbi wa sallim bandiraɓe julɓe bandiraɓe alpularen mi salminimon mi juurima on miɗen dara jam on eɗen jette allah nde o okki en tawtoreede nde yitande e ngal pottital mbokki jullit yi ci turu président de la république El Hadj Macky Sall mi ñu fi yabal man ak délégation bi ñu ràññee ci ministre Malick Sall ministre Cheikh Oumar Anne ministre Abdou Karim Sall ministre Samba si ministre Zahra Iyane Thiam envoyé spécial Aïssata Tall Sall directeur général administration territoriale Ahmadou Sy gouverneur de Dakar Alassane Sall préfet de Dakar Alioune Badara Sam sous-préfet de Dakar Plateau jibi Diallo ñu ànd également ak monsieur le maire Bamba Fall maire de la commune de Médina ñoo ngi nuyu Thierno Mamadou Bachir Mountada Tall xalif général communauté omarienne di ci teg Thierno Madani Mountaga Tall xaadimul hadratil umamiya ñu ngi ciy teg sëriñ Isaaxa Bachir Mbakke mi fi teewal xalif général de Mourides di ci teg sunu mbokk sëriñ Mansour Sy Abdoul Aziz mi jiite délégation wu sëriñ Ababacar Sy Al Mansour xalif général de Tidiane ñu ngi nuyu docteur Ahmed Tawfiq mi fi jóge léegi nekk ministre de Abous et des affaires islamiques du royaume du Maroc di nuyu ak ziyaar itam mbooleem muqaddam yi ak njabooti kër diine yi ak kilifay aada yi fi nekk ci jataay bi Cerno Bachir maa ngi lay xamal ne teew nañu fii tey ci ndigalu président de la république son excellence Macky ngir sargal leen ak ndokkeel leen ci xew-xew bu am solo bii muy bés bi ñu jagleel suñu maam Thierno Seydou Nourou Tall ak suñu maam Thierno Mountaga ngir fàttaliku seenub liggéey ak seeni taxawaay yi ñu amoon ci diine ji ak ci réew mi ak lépp lu soxal mbiru askan wi ginnaaw bi ñu yeesalee suñu kóllëre ak ñoom ñaan yàlla mu dolli seen leer ak ngërëm ak yërmandi ci ñoom événement bi nag tolloog ñeen fukkeelu at ginnaaw bi Maulana Thierno Seydou Nour laxo ngeen dara jaaleel ko njabootug Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ngir dundal ak suuxat kóllëre gu rëy gi jaaroon ci diggante ñaari kër yi ak ñaari famille te muy loo xam ne sunu maam Seydou Nourou bokkoon na ci ñi jiitu te gën a ràññeeku ci ñu ko doon dëgëral ak doon ko rafetal ci anam yépp bi mu fi bàyyeekoo itam ci le 25 janvier 1980 mu Mountaga mi ko wuutu doon na wéy di dundal kóllëre googu diirub li mu fi nekk kon nag Cerno li ngeen def ren continuité rekk la ci liggéey ak taxawaayu mag ñi mu doon loo xam ne nag nun génération bi war nañ cee jàngay lu bari ngir defaraat jikko yi ak rafetal nekkin wi yokkit taxawaay yi te mu conférence bi Ligue de ulémas tànn ren te muy Thierno Seydou Nourou kilifa gu dégg jamonoom tey model ci diine ji ak ci askan wi mat na sëkk ak yóbbal ci xam ak mën dund ak citoyenneté ak patriotisme ñoo ngi profité ci occasion bi di sargal ak rafetlu bu baax ci turu président de la république taxawaay ak liggéeyu conseil supérieur bi boole kilifay diine yi aju ci xadara bi yépp ak ligue des ulémas bi ëmb boroom xam-xam yi ànd ak yow Thierno Madani ci liggéey bi ngay def ci biir diine ji ak ci réew mi gannaaw loolu association ABAB Cheikh Omar Foutiou Tall organisé conférence bu am solo ci tem bi crise des valeurs et déviance sociétale du Sénégal au Sénégal quel remède à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Saïdou Nourou Tall thème boobu jàngat yu bari te am njëriñ tukkee ci ñu ñaanal askan wi mokkal jàngat yi te jëfe ko ci loolu it ñoo ngi rafetlu bu baax li Cerno Madani Taal sotti sotti lu waat téere waajuram Cerno Muntaga bu aju ci dund ak liggéeyu Cerno Seyd Nuuru Taal ndax Cerno Bachir sunu réew mi bés bu yàlla sàkk ñu gis ak jëf ak ay jikko yoo xam ne xàmmewuñu ko woon ci jàngat yooyu responsabilité kilifa yi ñi ngi ci rawatina kilifa yi ci kër yi ci lu jëm ci yarinu xale yi ak ci lu bari loo xam ne tey li koy yombal mooy li ñuy wax réseaux sociaux muy whatsapp di internet di telegram ci ay xeetu jokkoo yoo xam ne dugal na ci réew yépp ba ci réew mii lu doy waar tey xeetu jokkoo yooyu indi na ay jafe-jafe yu bari ci sëy ndax ay waay dencante dinañu nekk ci néeg duñu waxtaan kenn ku nekk di jokkoo ak a waxtaan ak keneen koo xam ne ma nga feneen du nekkul ci néeg bi suñuy njaboot kenn xamatul kan la ñuy waxtaan ci kër yi Thierno bashir ñuy ñaax parents yi walla boroom kër yi ñu gën a farlu ci yaru njaboot gi ndax njeexital loolu lépp ci comportement yi xale yi lay dellusi ñu gis ak a dégg lu ñu xamutoon ci suñu société lu bari ci ay film lañu ko daan seetaan waaye léegi dafay xew-xew suñu wet ci suñuy kër kenn ku nekk am na ci responsabilité moo ne day comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee ci addis ne kenn ku ne danañu laaj noo doon sàmmee sa njaboot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lii xew fan yi ci Medina Baye ñu fekk ay nit seen biir kër ñëw ci réew mi ndax jàmm ji ñu fi dégg ñu fitnaal leen jël ci bakkan ginnaaw bi ñu ko jaalee njabootu ñaseen gépp ñu wax ne nguuru senegaal du noppalu te tegut loxo ñooñu yóbbuleen ci yoon yeneen ñaawteef amoon na fi ci Touba ak ci Kolda ayu bés bi ñu génn Thierno Bachir Thierno Madani président nee na gis na bu baax seen taxawaay nee na it ngi feddali ak yeesal engagement bi mu jël ngir jàppale leen moom ak gouvernement communauté bi ci lépp lu doon seen yitte déjà dina tabaxaat jumaa ji te bëgg na liggéey bi tàmbali bala mu yàgg néga ni daaw ñi ngi doon sàkku ngeen ñaan jàmm ci réew mi ñi ngi doon dëggmal élection présidentielle yàlla def ci jàmm lépp jàll ci jàmm président Macky Sall faluwaat ci dal ci palgur amul benn werante réew mi nag ngir mu jëm kanam dañoo war a liggéey te loolu la askan wi li di xaar ki ñu teg ci bopp réew mi bi mu nekkee ci bopp réew mi ba négani wàll wu ci nekk yokkute am na ci wàllu courant bi ngeen di dégg coow président Macky sàll bi muy jël réew mi Sénégal dañu tolloon ci di séddale courant buñ taalalee ñi fayal ñii cinq cent mégawatt moo fi nekkoon tey mi ngi ci mille mégawatt 2012 ak néga ni dugal na lu mat juróomi téeméeri milliards ngir jàppale njaboot gi ci fayum courant àll bi amutoon ndox tey fu nekk bënn nañ fa ay forage mbayum ceeb ci réew mi bi mu fi toll quatre cent mille tonnes lañ fi récolté ren ñu ngi ci un million deux cent mille tonnes ci ceeb mbayum gerte 2012 700 000 tonnes lañ fi récolté njëg gi toll ci fanweer ak juróom fii ñuy wax ak yéen ñu ngi ci 1 million 400 000 tonnes njëg gi toll ci ñaar ñeent fukk ak ñaar te gisuñu ko ren lu ma téeméeri milliard dugg na ci àll bi ci poosu baykati gerte yi waxun tali yin fi def waxun politique inclusion sociale bi mu jël ci budget fanweeri milliard ak juróom séddale ko ñi nga xam ne ñi mosu ñëw bokk ci loolu nguur waxun lim def ci wàllu santé Sénégal toq pétrole amu fi woon en 2012 ci ak ayam la fi xéewal boobu feeñ ba tey Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne ñu ngi fiy séentu pétrole ak gaz 2022 2023 coow lu bari li fi jóg mu ngi soxe ko ci ñuy bëgg teg loxo ci loolu jaar ci ay doom réew mi di leen defloo ak yéene loo xam ne li peut-être moom lañ bëgg te jotuñ ci sëriñ bi fii ci senegaal loolu du fi amee cerno président gannaaw bi mu biñ ko tegaatee ci boppu réew mi woote na ñépp waxtaan ci tolluwaayu réew mi ci yorin wi ba pare wax ne lu ngeen maasale ànd dinaa ko doxal mi ngi sàkku ngeen ñaanal ko ñaanal réew mi yàlla saxal fi jàmm jàmm ji fi nekk te dolli xéewali ak naataange bi ba ñu sumb li ñu sumb ak li ñu naal lépp sunu borom yeggel ko du ñu waddal suñu kàddu te remercier wuñ réewum Maroc ndax lii ngeen wax ne def nañ ko fii ci formation imaam daaw amoon ñu fi ñëwoon ren également amaat ñu fi delsi gannaaw bi ñu jàngee foofu ba pare ceerno ko di ngonno kongudde di son excellence président Macky Sall wiino min yo min jettinanmo e besngu Cheikh Omar yu taal o fof o denndal ngal juulɓe hawruɓe dobe fof oɗon jarlo oɗon jaafo allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu a jarama monsieur le ministre de ceer mouhamadou nouru ni khalif de la famille de alhaj mod moussa ly nen ɗo e dental ngal kañum ne ceerno joni konngol arte maɗa an jey konngol similla mbinoɗen ko enen pusa ko adi juulgol fotoro ne dañu waxoon dañuy yamale mbir mi laata ñuy julli timis alhamdulillahi xalifa o ari ne alhamdulillahi xalifa bi ñëw na kaaloɗen ko ene mu ne li ñu waxoon mën na nekk eh, en joginoo ɗogel ngol dokkano ɗen jaatigeɓe men lebunkoɓe ɓe kono noon waktu o ɓitti ne amoon na nañu yéenee jox kàddu suñu njaatige yi waktu o ngadi wayino wayni ceerno nee na waxtu bi deme na ni mu demee ponno rokkude amir sardawna konngol kono noon waktu o kadi ko nii wayi ne waroon nañu jox kàddu ami Sardauna mu wax moom tamit te mu bàyyi ko fële ca Nigéria jooniitan fuutankooɓe kanko jooniitan Cheikh fële sa Nigéria moo fa toogal njabootu Cheikh Omar toogal fa fuutante yi koy di ko mbi ñamirno comité d' organisation yo tinni daro organise organise ziara o hikka ɓe darima ɓeɓe organise ɗi mum ɓe organise ko no ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko jetti en allah ɓe mbaɗi rende compte dental ngal ko heddi ko min waɗa rende compte ceerno bosir ne karte ngalama ñi nga xamante ne ñooy ahbaab ak raadila moom moo leen joxoon ndigal nañu wéyal mbir mi nañu may si daggu sata jadi julɓe eh, ɓe noddama gari e ɓurtinde ñalawmaji baama e ɓurtinde ñalawmaji mawde eh, kawragal julɓe ko ɓe eh, gari e keeleni maɓɓe لجريم الأنية المبتمون لامو حبرنو دريم هن در فوق دارات هن على كميتي هن بانغلا من كومك هن تجارة mune jullit yi ñoom ñëpp ñëw nañu bàyyeeku nañu fu nekk ba léegi lii xew kon nag ña nga xamante ne dañ leen boom fii ci réew mi liñ leen boom boom nag yeen état bi àndu leen ci ñi nga xamante ne ñooy ŋànk wàllu diine ji di xalif généraux yi ñoom tamit ànduñu ci lépp li ci war ngir daan ñooñee ba jàppaleen ba jaarale leen fi ñu leen war a jaarale kon nag yéen a ngi si gàcce ngalaama yàlla na leen yàlla fay si loolu ñun ak yéen ñoo ànd si mbir moomu ko masuuliya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ɗum noon yalla walluɓe e rende walla seeranɓe ɓe e haalde ne monsieur le ministre wax nga léegi hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci doomi aadama yi rawatina kilifa yi am la lu la sàmmaloo te loolee ñu la sàmmaloo ëllëg yowmal qiyaama di nga taxaw ci kanam borom bi nga daldi di rendre heddi ko banndiraaɓe julɓe ɓe ɓe taani ɓe taani gollondirnoo e taaniraaɓe mumen kañum fof ngarii nan ɗo ngari teddinde cheikh oumar ngari teddindema ngari teddinde bamma e mawne e teddindema ɓe njaaraama kamɓe julɓe arɓe ɓe woɗɓe ɓe njiɗa yinnooɓe arde dañaani arde njaaraama e yoɓɓe moƴƴere yo allah teddinɓe yo allah ɓamtu l'islam yàlla allah ɓamtu ɗariqa o yo allah ɓamtu enɗam ɗam ɓamta leydi ndi ne mbokk yi ak am di jàmm yi ak xarit yi ak wóllure yi ñoom ñépp ñëw nañu wuyu si yow Ceerno Basiir sa maam Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu ñëw nañu wuyu siwaat sa baay di Ceerno Saydu Nuuru Cheikh Umar radiyallahu taala anhuma ñëw nañu wuy siwaat sa mag ceerno muntaqa ahmad muntaqa cheikh amadul fuuti radiyallahu taala anhum ajmain kon nag ñoom ñi wuyu si seen jaan wàcce na ñu ngi sàkku ci yow ñaan dañoo di leen ñaanal waaye ñu ngi sàkkuwaat ñaan ci yow di yeesal tamit seen mubaaya si yow ñoom jullit yi rawatina ñi nga xamante ne ñooy fuutanke yi teral nañu lislaam teral nañu cheikh marul fuuti teral nañu mawlaana seydi cheikh tidiane sérif radiyallahu taala anhu eh, ko taani noddunoɓe taani noddunoɓe taaniraɓe ɓen ɓe nooti ha joni sa noddi ko ɓe nototoma taani wino jiiwu ahlu fuuta wa ahlul muslimina ji'u fa inni lastu atruku saahibi huna wa gadan walfadlu lillahi zi tawli ko ngon noddago ha joni yahata oɗen koyɗe jahata koye koye nden saƴade jooɗiɗa ɗum noon yo allah wallu woppanma min ɗo e jeesam amen ko juuti woppanma ɗo e woppana min l'islam o ɗo e ko juuti ñun ñëpp nañu wax amin mu sa maam Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu moom moo woote woon bi mu wootee maam yi tamee daldi wuyu si woote Cheikh Umarul Fuuti woote jooje nag ba léegi yow mi Cerno Basiir soo wootee ñu wuyu si woote bu ñu wuyu si woon Cheikh Umarul Fuuti sa maam sajaade boobee di sajaade Cheikh Umarul Fuuti yow yaa si toog yàlla na la yàlla bàyyi ci suñu kanam gunge bi yàlla na yàgg yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla wottu lépp loo sumb si wàllu diine ji lépp loo sumb ci wàllu njabootu Cheikh Umarul Fuuti ñun ak yow yàlla nañ ko naalandoo wona heen usra damawiya wona heen usra ruhiya min kestitina aadi hakkunde amen e ma aan jullontiɗo ɗo alhaji oumar o emin keddidina mo amen e min ñaagoma en allah yo allah woppe e jeese amen ko ne njabootu cheikh oumar jindi fi nekk si àddina wërngal këpp njaboot ja nga xamante ne si wàllu ruuxu lañu ak njaboot ja nga xamante ne si wàllu deret lañu ak meen ñoom njaboot jooje ak ñun ñu lay def mu baayaa ni jullit yi ak fuutange yi defe woon mu baayaa samaam Seex Umarul Fuuti mu baayaa boobu ñu ngi koy yeesalaat fii ci sa kanam kon nag mu baayaa boobee ñun ñépp tàllal nañ la loxo nga ñaanal ñu ñun tamee ñu ñaanal la nga yàgg fi lool yàlla bàyyi la fi ba si kanam kanam kon nag loolu ndamu lislaam la ndamu tamee njabootu Cheikh mar la e di won konngol windanoo e farayse e arab fof kono waktu o ɓitti ceerno saydu no fonnoo janngude mo arab ceerno oumar sy ene fotnoo janngude mo farays kono waktu o ɓitti heddotoo ɓe janngoye ɗum e, par média par télévision so allah jaɓi ma ɗum janngoye ɗum noon an kadi heddii kongol ko kongol ceerno basir heddiiɓe rutiiɓe e kawlak ɓe e rutiiɓe tuubaaɓe enen fof eɗen ñaago allah yo allah waɗɓe weleede muɗum yo yurmoɓe yaafooɓe yo allah jolɗe maɓɓe ne am na kalima yu ñu defoon ci wàllu arab imaam ceerno saydu muntaqa ahmad muntaga cheikh umar moom moo waroon def kalima boobu honorable monsieur cheikh umar si di doom ci madina muntaqa ahmad muntaga cheikh umar di ci doom waat excellence ceerno saydu si bu suñu yaay jaynab taal moo ko waroon def ci wàllu français kon nag ñoom ñooñee dañuy dem ci média bi lu message boobee ñu daal ko wax foofu li des nag ci timis daanaka jot na kàddu ji léegi yow Thierno Basiru sa kàddu la délégation Médina Touba o eɗen jetta délégation ngaji spécialement délégation ummiɗo tiwa wono sibu jonde ko jonde maɓɓe kamɓe teddindirano ɗum wona enen beela mbaɗi ɗum ko ceerno saydou rokkuno hoore mum tiwa on ko ɗo e sénégal fof walla ko woni aduna e fof ne anndi ɗum ɗum noon ngal ɗon dokkal enen fof en dokkidama hen ha joni en kalfiniɓe ceerno basir en kalfiniɓe koye meɗen ne jaɓoto seydi alhaji malik ñoom lañu terale woon 40 disparition Ceerno Saydu Nuuru bi mu làqoo ci biir suuf kon teraanga ji seen teraanga la yéen waa Tiwaawoon Ceerno Madaani nee na Ceerno Saydu Nuuru moo joxoon boppam ji Malik Si te lépp la ko joxoon bàyyiwul woon dara ñi fi nekk ci biir Sénégal xam nañ ko àdduna wërngël këpp tamit xam nañ ko waaye nag duñu fàtte di beral nuyoowaat ña nga xamante ne ñooy waa kër seyxul xadiim radiyallahu taala anhu di seex ahmad bamba ki nga xamante ne moo fi yebal njabootam di sëriñ muntaqa basiiru mbàkke yàlla na ko yàlla bàyyi fi ci suñu kanam ki nga xamante ne mooy sëñ ababacar si mansour di xalif général tijaan moom tamit yàlla na ko yàlla bàyyi ci suñu kanam Ceerno waxoon na ñi faatu woon fële ca kawlak te ñu boom leen ak ñi nga xamante ne ñu faatu ñu boomoon ca Tuuba ñoom ñépp yàlla na leen yàlla xare ajana ñu ngi leen di jaale ñu ngi jaale njaboot ji di jaale réew mi rawatina di jaale président de la république monsieur makisal mbokk yi suñu waajur suñu xalifa Thierno Bachir nee na ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ngi sant njaboot gi yépp di sant ñu jóge fuuta jóge yeneen gox yépp mu ngi leen di sant ku nekk ci turam yàlla gis na la moom tam gis na sa teraanga mu ngi leen di sant yéen ñépp jullit yépp fu ñu mën a nekk mu ngi leen di sant mu ne du répété li mu waroon wax doomam wax na ko muy Thierno Madani mu ne loolu moo koy neex moom ci boppam mu ne mu wax ci kanamu njaboot gi yépp loo xamee ne dina dalal xolu ñépp xamal nit ñi ñépp kër Cheikh mar benn la amul ñaar ku nekk nañ ko jox cëram moom loolu la xalaat mu ne loolu la Ceerno Madaani def bég na si doy na mu ne lu des mu ne mu ngi sant président makki sal mu ne bi mu ñëwee États-Unis moom mu ne daje nañ foofu mu ñëw nuyu si ko ak seet si ko mu ne ko makki mu ne nga def xel ci sa xel ci jumaa Cheikh mu ne yow yaa ko war a tabax yow yaa ko war a defar mu ne même sudul woon ñun sët yi comme nee nañ jumaa Cheikh Umar la mu ne yàlla def la njiit nga tey yaa jiite Sénégal te ci njabootu Cheikh Umar nga bokk mu ne lépp ci yow lañ ko teg mu ne war nga tabax jumaa ji mu ne ñaan naa la nga def ci sa xel mu ne bés bu mu koy wax am na ñu fekkee woon loolu mu ne am na ñu fi nekk am na ñu nekk États-Unis mu ne mu san mu ngi sant yàlla moom mu ne yàlla xiir ma man imaam bi ma taxaw ak président wax ak wax waxaat ak moom wax ji si si làmmiñam laa doon waxe mu ne mu tontu lu mu war a tontu mu ne ñun njabootu Cheikh Omar yépp jullit yi tijaaniya ak ñu newul tijaaniya mu ne képp kuy wax laa ilaha illallah kontan na si li nga wax si jumaa ji mu ne jumaa nag kër yàlla la yàlla rek moo ko moom kenn moomu ko mu ne ku ko taxawu te yàlla nga taxawu du moom nga taxawu mu ne ministre bi nag lu tax mu ne lii il faut mu insister wax ko pour soo demee nga wax président moom Thierno Bachir kontaan na si moom njabootu Cheikh Omar yëpp kontaan nañ si moom ñu ngi koy ñaanal yow yónni suñuy wax ñu ne nga yónni euh, saxaar si asamaan saxaar moo gën a baax looy yónni si asamaan yëpp saxaar ndax dafa méngoog asamaan kon nag kuy yónni nga yónni ministre de l'intérieur xam na ne di ko eggal incha allah feewi mu ne jullit yëpp nañ ci def seen xel mu ne jullit yëpp du kii du kii mu ne kuy jullit jumaa bi sa jumaa la nga def si sa xel yiw yi nag yu si nekk mu ne bu gël nañ ko màkki ñun tam ñun tam ñu ngi wut yiw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna mu dellu mu ne walaw qadra mafxasati qataatin même su dee benn brique kon ñun ñëpp dinañu bëgg a def benn brique ndax ñu am kër si àjjana Ceerno Madani mu ne lu des kontaan nañu mu ne yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam ñu yàgg moom nu ñu waxoon ni yàlla dimbali nañu noonu sërif tayib mu def ñaan ku bugg a dem dem ñu julli incha allah jaɓen duwaw sérif ɗe uno en amin amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin yaa ilaahi amiin amiin amiin amiin amiin amin amin amin ceerno madani wi ko janngo duwate neena